nuy na leen mbokk internet yëgle TV jëye yaa ngi continuer gannaaw manifestation bi ñaari nit ñàkk nañ ci seen bakkan kenn ki ab màgget la moom dafa lakk ba xëm keneen ki mu ngi am fukki at ak juróom ab xale la ñi ci des am ay gaañu gaañu ñoo ngi leen di ñaanal yàlla xaare leen àjjana ñun on se bat pour yi ñoo door lacrymogène bi ba nit ki dee ci ku ci nekk du liir de mag la bu nga xëpp c'est écœurant ñun policiers yi sont nos grands sont nos grands frères nos ne c'est pas Macky xeexuñu pour ça Sall sent bon. mais c'est pour l'avenir du Sénégal mënuñu fi nekk di dem quelque chose yoo xam ne c'est éternel à chaque fois nous revenir sur les mêmes choses nañu kattan ndayam ci tali bi ba wala sama ñoo seen naka la demee naka la Nous dañoo dàq dañoo dàq gars yi waaw dañoo dàq gars yi ñu ñëw waaw léegi ñu ñëwee ñoom ñu toll fële waaw di sànni naqar ma seen bi mu defare si mat naa mat naa ñun ñoo ko doon xëcc di fay xam nga xale bu jaamu la après ñu fayee ba dindi ko lañ gis xale yi si biir. ay wax dëgg ëpp Lofane Ndeye ay wax nag. ñu ci jàkk dañoo rey sa Lofane Ndeye. affaire na jàll na na jàll. affaire na ko ñëpp yëg ah. booy nañ dénoncé lii si ginnaaw lii si ginnaaw. kii mag la mënul dox sax mag. mag moo nekk fii gars yi nag xamoon. gis nga rey ngeen eh, ci léegi nii. mag bu mënul dox xale du xale de mag la.

không ra được nhớ không nhớ không ra được Thank you. bi dee fii fii ñu tiim ni nag fii nii la xale bi ñàkkee bakkanam ñii ñi ngi naan xale la ñii ñi ngi naan paa la parce que dañ fi fekk benn li nga xam ne ni presque mënoo mënatuñu woon sax distinguer corps bi xale la wala mag dafa lakk ba macha allah liñ ci fekk moom benn waar lool lool lool fii nii nag la la ñoom ñoo ko rey de. ñoom ñoo si door la kanam mu mu ci biir la toogoon ci biir ma laay la toogoon ci biir ma laay la ñu ñu daw ñu góob la ko dama leen mu jàpp si ma mu tàkk ba jeex tàkk. mais xale bi ñoo ko jëlee ñu ne du xale mag la. la booy bi toogoon fii. keroog ñu door ko a rek mu doon mu daal ma laa bi commencé jàpp tàkk tàkk ba jeex mu dee. waaw lakk ba xam la def lakk ba xam ñoom ñoo ko taal. kenn nag ñoo ko ñoo ko taal ñoom policiers yi ñoo ko taal. ñoom ñoo ko taal quoi ñoom ñoo ko. voilà sama bopp ba pare sànni ci dëkk bi. li mu jar ko li ma nekk place li ma nekk place liggéey. ay mag laa def fii la place mu nekk dëkk. policiers yi ñoo fi sànni seen gërëm ak borom sa bopp am. ñoo ko jor ñoo tibb tuuti ko ñoo taal. bi ñuy fay ñu fay Jalimata Jalimata moo fi nekkoon. dëkk tibb tibb ko wala rek. ah tibb Jalimata wala. waaw. fii la tëdd ba tey la ko ba tey lii du yoon lii du yoon gis nga lii du mu war a mu war a def ma la la la jël paas yax yaa ngi nii xool leen ko ah grenade yaa ngi noonu waaw grenade baa ngi nii grenade bi nii lañ fekk si si xale bi fi mu nekk problème mooy problème mooy ñoo ko rey lefal ci ali ah nekkul question ne Macky Sall lañ àndal wala wala Sonko lañ àndal mais ñun ay ay réew te képp ki nga xam ne day jéem a yàq suñu réew duñ ko nangu xam nga lii du yoon ki xam ne yow nga jël li nga yor bëgg doon liggéey nga teg ko fi waxuñu loolu pas bi nga xam ne mi ngi toog fi nga di fi nga dóor lacrymogène fii xam nga day tax si mën naa ba pare dara ñun la ñuy sacrifier rek yow marche bi nga marche marche pacifique amul xeex amul dara doo leen bàyyi ñu ñu ñu dox seen yoon nañ a

ci bërëbu liggéeyukaayam lañ ko fekk daal di daal di taal affaire yi feneen la bi tëddoon léegi la ko daal di na métti na lool lool lool lool métti na na lool lii métti na ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ waaw fii nag ñi ngi ni en direct ci manifestation bi nga xam te ne am tey fii di tey ñi ngi fii ci Massalikul Jinaan benn xale moo moo lakk ba ñor xomb xomb xomb xomb xomb fi ñu toll di wax ak yéen suñ toll nii nag ñi ngi naan lakk moo doon policiers yi ñoo def ñi ngi naan manifestant yi mais ba léegi nii xamaguñu exactement ñenn ñi nag ñeneen xale bi dafa nelaw ci suufu matelas yi léegi ba lacrymogène yi ñëwee ak yooyu ak yooyu noonu ci la ci la affaire bi am.